jërëjëf mbokk internet yi safoo di seetaan site bi di wasaare ginnaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci Mariama Niass mbir mu doy waar nag daal di fi xew niki tey ci fajar accident bu métti bi nga xamante ni daal dina fi am benn bis tata bi nga xamante ni daal dinay def accident ak ñaari camion yi nga xamante ni ñoom ñoo ko sekkoon accident bi nag naka la demee ñan ñoo ci ñàkk seen bakkan ak ñan ñoo ci am ay gaañu gaañu loolu nag moo sabab suñu ay tànk ñu ñëw file ngir gisee ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko fekkee wala sax ki nga xamante ni moo yoroon bis bi wala ñi nga xamante ni ñoo fekkee bi accident boobu amee ngir ñu jox ñu ay leeral ci mbir moomu naka rek la demee ban heure la am ak kan moo ci ñàkk ba kanam damay giseek ñi nga xamante ni ñoom ñoo fekkee ni mbir mi nga xam ne moom moo xew ñu expliqué ñu comme ñun waa wasaare ni ñu koy defee saa su nekk bëgguñu di wax lenn loo xamante ne ni wóoruñu wala amuñu ci loo xam ne lu leer la loolu moo tax bu ñu déggee mbir rek dañuy def suñu kémtilaay kàttan ngir dem ba fi nga xamante ni foofu la xewee daal di taataan ay xibaar ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko fekkee damay ànd ak sama caméraman bi Al Amin daal di gisee ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fekkee mbir mi ni mel wala sax ñu nekkoon ci bis bi daal di leen tàllal micro bu ko defee ñu indil ñu ay leeral ci mbir moomu naka rek la demee accident bi. jërëjëf internet yi gannaaw ni ñu leen ko waxee ci accident bi nga xamante ni moo am file am na kenn koo xamante ni moom la ñu toogal mu jot a nekk koo xamante ni jot naa fekkee bi mbir di am dañu koy nuyu rek bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet yi safoo ko defee ñu daal di ñëw ci waxtaan bi ci accident boobu naka rek la demee kilifa gi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. naka la. Dame Ndiaye. Dame Ndiaye ndax mën nga ñu expliquer li nga xamante ni moom moo fi jot a xew ni ki tey ci suba. waaw accident bi ñaari camion ñoo doon doublante di daaxante ñoo doon doublante di daaxante léegi après benn camion bi muy double morom bi nee na ci la direction bi tëj léegi beneen camion bi wéeru ko léegi bi mu taatu tata bi. dal ci après ñëwaat dal ci kanam euh, ci kanam gi sëfoor bi di moytu nag moom garde fou yi waaw. mën naa xam tata bi ban ligne la. tata bi fii ligne la waaw. bi accident bi di am à peu près yan heure la. accident bi ay 4 heures ah. environ 4 heures daal waaw. ñaari euh, kon euh, li nga xamante ni moo di tata bi moom def ci dara ñaari camion yi ñoo doon doublé. non tata bi moom wax dëgg yàlla tooñul moom camion yi ñoo indi soog bi après tata bi moom xëy na ndogal la mënu ci dara xam nga rek ak lu war a am biñ ko wéeroo moom chauffeur mën a dawal sax moom moo tax mu yéeg garde-fou yi nii yàlla dimbali ko client yi presque benn blessé donc la ci am te du blessé bu grave waaw. Hmm. d'accord dañ joteen créé information que ne accident bi dafa am kenn koo xamante ni def ci ñàkk ba bakkanam ndax loolu tamit mën nga ñu jox ay leeral loolu moom ku ko wax waxul lu am taraa bi reyul kenn soog bi xam nga ñi ko fekkewul ñooy wax loolu rek mais nit ki dee noonu borom moto la mu ngi jóge woon almadi yàpp benn client les client bi mu séenee soog bi am dafa wàcc doon xool ba xam gars yi gaañu wuñu yooyu pour mu dimbali leen léegi tombe waaw tombe borom jakarta bi dem di saw fee léegi camion bi muy ñëw bi mu ko séenee xam naa li doon daw bari moom it mënut taxaw moom muy jéem a éviter pour dal fii xam naa di gën a yokk accident bi buñ duggee mbooy gi noonu fala ko fekk rey ko waaw noonu la demee. dafa duggoon foofu ngir tuur uh, ndox mu uh, camion bi fekk foofu daal jaar si kaw. waaw waaw. nga xamante ni moo ci am ay gaañu gaañu mbaa seen gaañu gaañu yi garaawul noonu wala. loolu kenn rek la noonu waaw. tata kenn dong moo si gaañ ana ki nga xamante ni moo yoroon camion yi ñaar yi nga xam ne ñoo doon dawal camion. non camion bee moom ki rey nit ki waaj daa daw. parce que policier bi nee na moom moo ko jàpp ne ko est fanaan fii ba mu leer mu ne ko xaw ma patron am da koo yàqamti quoi policier bi sànq loolu la expliqué mooy ki rey moo ko ne doo fanaan fan. fi mu ko jàppee noonu pour mu fanaan fa ba bët set mu ne ko patron bi da koo yàqamti xëy na tamit lii moo waroon a am rek daa waroon a jël si bakkan waaj. mooy loolu ko léegi mu reyee waa ji ba pare la daal di ah, daw. dafa daw. gisu ko. gisu ko kay. daa daw de camion baa ngi nee <laughs> mooy loolu. tey ban message ngay lancé jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñoo di autorité yi ndax gis nañu fi mu nekk ni jamono yi accident yi metti na lool te saa bu ñëwee rek faat bakkan wala mu am ay nit te am ay gaañu gaañu. non man kay bala ma autorité yi client yi romb tataay yaakaar ni tataay ñooy def loxoori tataay bi moom defut dara dañ koo tooñ wax dëgg yàlla. xam nga Sénégal moom mooy lool loolu ñu xam ku tooñ dañuy ñëw rek wax boobu ba bi ñu fi tooyee da ngay gis ku romb ni chauffeur tataay nii lañ mel di wax di wax te xamuñ ñun demee chauffeur bu mënul woon dem dawal ak kon ñim yaboon ñëpp dañuy waaye ñëppay dee ñëppay dee mais yàllaa ko dimbali ak mën a dawala ba tax mu sauver bakkan yooyu yëpp mais ku romb fi mu toll nii toor bi yëpp tataam nga koy jox te doo xam ni mu demee gars yi dañuy romb filmer rek dugal ci net bi ne chauffeur tataay chauffeur tataay te wax dëgg yàlla képp kuy daw ci tali bi chauffeur tataay ñoo la dàqal maîtrise te bu choc amee xam nañ niñ koy éviter ba du am ay blessé yu bari te ñi fi romb di ko fi wax ñépp ku mu doon yawit day gën a ñaaw ni mooy lool lu si des nag moom mu ngi noonu daal kenn mënul wax lépp xalaat ne moom la ñu mën a jël ba accident yi nekk loo xam ne bu fi jeexul tamit wàññeeku fi ah mooy seen autoroute bi bu fekkee amuti lumière ñu gën a def lumière yi rek ba pare camion tamit ñu wutal leen heure boo xam ne moom la ñuy daw quoi parce que benn heure bi tamit ñu bëgg nekk ci tali bi mel ni ñoom ñoo ko moom di daaxantu loolu day indi soog rek ak wéeranto yi man da laa ci xalaat ba keneen di ci wax xalaatam rek. fii mën nga ñu fàttali bi lii bi accident bi amee. Mariama Niass bi. Mariama Fëru Tata bi. Sëwa dem central. waaw. Ah. d'accord merci de rien. Ah, kilifa gi maa ngi lay nuyu. maa ngi accident bi ci bis bi la la fekk. waaw waaw. d'accord ndax mën nga ñu expliqué exactement li nga xamante ni moo dal ci seen biir tata bi naka rek la demee ak tata bi ban ligne la. waaw tata bi ligne 3 la ligne 3 dañoo xëy di di yàpp mairie mairie pour dem xëy quoi léegi bi ñuy ñëw ñaari camions yi lañ gis ni duglante quoi ñun boobu freiné nañ mais dañoo dem jàll ñoom ñaar kon nit dax seen voie normal bi ñëwee di romb keneen ki romb dugle dugle baaxul quoi mu wéeru ko léegi camion fekk si ñu duñu fekk euh, dóor ci ginnaaw yokk mu ñëw fekk ko foofu daal koy wéeru yéegal ko ci trottoir bi waaw noonu la demee. kon bisu taat bi doon daw ci voie bu normal bi. doon daw voie normal waaw. ñaari camions yi ñoo doon dàqante. waaw ñoo xaw ma ne mu nee na nag direction bi moo tëju woon la wax mais oto buy daw moom direction bi mën na tëju. waaw wax loolu borom camion bi wala. camion bi waaw benn borom bi nee na direction bi moo tëju mais loolu lu mu wax la rek ndax oto oto moom bu ko defar ak direction bi mën na tëju moom. li ci ginnaaw ci gi ci booru booru gise gi fi mu nekk ma xool la ma léegi ko ci gën a yokk oto bi gën a mën a am a romb mu romb dem ba ba bopp otom mu wéeru ni kees kees otom bi la ñu wéer daal suñu bopp oto bi waaw loolu ñu yëgal ci xalbi rek waaw non non feesul woon de waaw am ay gaañu gaañu. kenn rek gaañu waaw mujj moo ñu benn problème moom. dafa dafa dem jëli central jëli ps si dara bi ñun ñu ñun ñu àndoon camion boobu moo nekkoon ginnaaw oto boobu léegi bi mu si nekkee suñ nekkee suñ ginnaaw moom bi ñu dalantee mu xam ne ñun force dinañ soge taxaw taxaw mu xam ne bu ñëwee suñ kaw déegi day gën a métti. léegi mu ne xaaral ma mu saaraanal oto bi ci mbooy gi quoi pour bëgg koo téye bala moo agsi ci ñun ndax bu doon freiné oto bi du mën a taxaw léegi fekk borom cag-cag mi ngi noonu wàcc doon tuur ndox foofu ci la ko fekkaalee foofu ci daal di koy jëla daal di koy mbëkkaale waaw noonu la demee non ci daa fekk mu gaara noonu trottoir bi client baa ngi ci ginnaaw bi Dakar te ami mais moom dafa wàcc di tuur ndox noonu ci la ko mbëkkaalee ñun na ñoo yëg ni sax am na am na am na camion bu taaraam te war a dara waaw borom càq-càq bi fi mu ko mbëkkee la ñàkkee ba kanam wala dama. waaw bi mu ko mbëkkee la ñàkk ba kanam te ndax benn booy moo ñëw daal ni am na ku gaañu feeñ bi ñëwee lañ fekk benn càq-càq bi mu ma jële di mais daa wàcc ci tuur ndox fi la ko camion bi fekk waaw. am camion bi mbëkkee jot ngeen koo nañ koo gis kay mu tëdd noonu mais kenn laalu koy koo gis mu lemu noonu jaxasoo ak suuf si noonu rek waaw. ñoom daa jaar ci kaw. waaw dafa moom tey Médina Médina moom Médina moom ñoom ñëpp xam nag ba xam na fan kii yem dee ndax laaluñu ko mais sapeurs yooyu daal na ko moo ko moo ko fi moo ko laal moom kenn laal ko fi moom ay kii ko seen mënu sax. ñaari camion yi leen tànc bokkut ak benn camion bi faat waa ji. bokkuñu de waaw camion faat waa moo nekkoon ci suñ ginnaaw a ginnaaw Euh, tey eh, message bi ngay lancé jëmale ko ci askan bi tey ban message lay doon. ah xanaa ñu xool nuñ defee kii bi autoroute bi buñ mënee gën a renforcer lamp yi wa ilaa ñu wax camion yi ñu bari ñu ñu am heure boo xam nii dañ koy kii mais buñ bëggee fanaanee daw itam mooy loolu du nekk loo xam ne day sotti waaw. ban heure la am. non ngi am trois heures quarante neuf. trois heures quarante neuf ndax appel bi ma mujj a wuyu trois heures cinquante la te bi ma coupé trois heures kii la euh, trois heures quarante la te bi ma coupé bi ma coupé rek la soog bi am waaw trois heures quarante neuf la am. d'accord fàttali ñu lien bi nga xam ne fii la soog bi amee. waaw fii mooy Mariama Niass waaw fii ci Mariama Niass la soog bi amee waaw. d'accord merci beaucoup. ok waaw.